bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp xibaar yu bari la yéenekaay yi xëyee genn ci àllarba tey ji fukki fan ak juróom-ñaari weeru avril atum 2024 le témoin nga ci wàllu diplomatie di jàngat enjeu wu tukkim jiitu réew mi tey ji ca Mauritanie yéenekaay ci réew mi ko jagleel sunu doon def di dem France foofa it la lii quotidien jaar yéenekaay baa nga ca enjeu wu tukkim jiitu ba jox ca kàddu magay gay di économiste mu ne demu président Bassirou Diomaye Faye tey ji ca Mauritanie la ko lal mooy urgence yi am ci wàllu pétrole ak gaz gi ni ñu ko war a exploité àll seen beneen économiste ne jaadu na mu njëkk faa dem ndax lu ëpp ci plateforme gazière bi ma nga ca Mauritanie ñu xayma ko ci vingt cinq mille milliards de pieds cubes ci wàll nappi di pêche bu nu ci xoolee xam ne jaadu na njiitu réew mi njëkk a dem Mauritanie yéene kaay bi li ko waral mooy bu nu amee jafe-jafey jën Mauritanie googaa nuy jox ay licence ñu mën a napp wàllum xeex jihadisme a lëngoog Mauritanie lii lépp yéene kaay bi ne boo ko dajalee mooy enjeu wu tukkim njiitu réew mi ca Mauritanie googa te muy lu jaadu Le Soleil ma nga ca tukki président Bassirou Diomaye Faye tey ci àllarba ji ca Mauritanie yéene kaay bi la ak sëyub xel un mariage ndax mën naa melatina meloon lii la critique yi teewoo L'Observateur moom yi teewoo politique diplomatique de bon voisinage maanaam rafetal sunu digganteeg sunu dëkkandoo yi la ca yéene kaay ba gis mooy président Bassirou Diomaye Faye mi ngi ci tànki Macky Sall ak Abdoulaye Wade ca woowale wàll yéene loola di ñu wax ministre Macky Sall yow woon ana ci lan la ñu ne tey Macky moom ma nga ca liggéeyam bu bees ba di envoyé spécial 4P réew mi quotidien ne tàmbali na doxal moom njiitu réew mu Sénégal ga woon démb ci talaata ji daje na ak secrétaire général des Nations Unies di Antonio Guterres ca siège ONU googa di mbootaayu xeet ga ngir yëgal ko liggéeyam bu bees ba baak la mu wundu booba jamono ñu ngi koy rëbb ci Sénégal ndax vox populi ñu yëgal ab pétition bu Boubacar Seye njiital Horizon sans frontières sumb ngir ñu teg loxo président Macky Sall ab mandat d'arrêt international lay sàkko président Macky Sall def tax ñu bari ñak seen bakkan muy ay crime politique waye it ci walu kom ba tax réew mi ne won ci tanki suux yene cabinet du Boubacar Seye kep ndax Abdou Bara Dolli di député ci assemblée nationale it ma ngay sakku mandat d'arrêt international ci Macky Sall Macky Sall mom ma ngay wax li waral mu yakamte wona def amnistie bi li waral itam mu waxtanon ak Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye ma ngay indi it ay leeral mom député Abdou Bara Dolli ci li dox digënté Macky Sall ak Amadou Ba digënté boba yittel sax la tribune mi laaj ana kana war moromam yene bi yi di laaj naka la Amadou Ba daal jógee ci palaasu incontournable maanaam ki mënta ñàkk ba yegg ci ki ñuy bañ a gis yéenekaay bi di ay leeral ci dàqum élection présidentielle beeg exploitation gaz bu Sénégal pétrole ak gaz booba laas di ñu yëgal ne président Bassirou Diomaye Faye dana ko waxtaanee ca Mauritanie ga mu jëm tey tey ji it Sud Quotidien dañu yëgal ne conseil des ministres dana am gouvernement Ousmane Sonko bi tey lay tàmbali dëgg déclaration de politique générale waaye itam motion de censure gu mën a am tukki ga président Bassirou Diomaye Faye amal ca Touba yéenekaay bi wax ca xëtam gu njëkk booba jamono ca xët gu njëkk Direct News ña nga ñu yëgal ni ab mission d'audit dem na ca AIBD yéenekaay ba ne Abdoulaye Dieye mel na ni ku nuy wër ndomb journal bi ne mission d'audit ba nu yóbbu ci aéroport international Blaise bu jas lu ñu naslam dafa tombé rek ak calendrier wu AIBD na mu jëndee action yàllaas SA amoon ca société 2AS yéenekaay ba ne ñu baree ngi wax waxi fukki milliards ak ñaar ñeneen naan fukki milliards ak juróom la lañu ca def ñey audité aéroport bu jas daanu ca indi ay leeral leneen lu ñu nar a indi ay leeral mooy recrutement yu baree bari ya ñu ne man koy def te ay lanceur d'alerte jéebaane ko yéenekaay bi ne ñey audité aéroport international bu jas itam daanu mbar mbiram directrice générale ba ñu ne tabbuñu ko te muy lëmbee bërëb ba Ousmane Sonko moom booba jamono yéenekaay bi di source a yëgal ñu ne déglu na ñaari directeur général mbiram building administratif koppar yee ñu ci defoon ngir yeesal ko avenaye waaye itam lakk ga fan la jóge yéenekaay bi ne interrogatoire dëgg ci la Bamba Njaay patron wu Bamba Njaay Essa Diar moom mi gañe woon marché defaraat building administratif waaye it El Hadji Malick directeur général AGETIP mi ne woon maître d'ouvrage ba yéenekaay bi ne Ousmane Sonko defal boppam yëf ya ab big la yor te daa taxaw nag ba yëf ya jeex mu leen di laaj ñuy tontu bi yéenekaay bi ne ba mu ca noppee daal liggéeyu building administratif waaye it lakk ga journal ba dellu siwaat ca la cabinet yi di Veritas defoon nip liggéey ak booba jamono yoor yoor bi di ñu baaxee luy niroog enquête tukkee ca port bu ndakaaroog yorin bu bon ba fa de yéene cabinet Mountaga Sy recruté na luy tolloog mille agents yoo xam ne fuuta lanu jógee emploi fictif yaak recrutement sauvage yeneen it yéene kaay baa nga koy joxoñ di joxoñ it 4-4 di woto yu bakkan ne lool yi nuy jënd luye gañu luye bâtiment di ca fay ñeen fukki million weer wu jot te tegunu ko fenn it yéene kaay baa nga koy jéebaane bato Joseph Ndiaye bi ñu jënd ñaar fukki fan juróom weeru janvier atum 2024 bi ne ab salub bu yàgg la bu nu peinturaat ne lu bees la kanam yu bees ci opposition bi waxtu woowa moom la leen fay fësal ne ay libéraux la gauchiste ak théoricien troisième voie yéene bi ne Idrissa Seck ca la bokk waaye moom ci perte vitesse la ne dawatul lu bari Khalifa Sall mi mën a jox lee ngay Barthélemy Dias Déthié Fall ak Malick Gakou la am ca élection présidentielle ne ñoo ŋànk troisième fois di ñetteelu yoon bi police moom ña nga ca yoonu am coppite ca seen direction générale l'observateur mi nu ko yeggee ne maam Seydou Ndour moom la ñu yaakaar ne danañu ko fal ca direction général bu police nationale Hamadi Lam la ñu nar a toftal ca moom mu dip adjoint booba jamono l'informateur ak le public dugal ñu poste xamal ñu ne ñaar téeméeri agent dàq nañu leen ndax départ négocié bañ doon séentu ca direction général ba mujjuta am yéenekaay bi ne syndicaliste yi nekk mer bu futt lañu def tàmbalee ñaxtu ñeneen ñu ne ci jafe-jafe laas yeggee ñu ko mooy ña amee feebaru roñoo tey fajoo ca angar des pèlerins yéenekaay yooya ñoo ngay dund mettit yu tar saa suñu yewoo waxtu woowa ca Walf Quotidien ñuy wax li waral nguuru président Bassirou Diomaye Faye gi war a jël wér yaram def ko priorité gu gën a mag lu ñu jàppoon ne priorité lay doon ci président Bassirou Diomaye Faye di tas HCCT conseil économique social et ak assemblée nationale point actu ma ngay wax gàllankoor yéen ca mën a amee yéenekaay na faaw

spécial secrétaire général bu ONU ci Libye yéenekaay bi ne la ko waral mooy professeur Abdoulaye Bathily neen daal dafa mel ni am na ñoo xam ne ndam ak ONU ci Libye ñoru leen daanaka sax moom la ñuy xëy di xeex xeexaw gi ci passeport diplomatique yi la ca am dëgg ak la cay ëppal enquête moom la xëy di jàngat yéenekaay bi indi ay leeral ci décret président Macky gi ak ña war a am dëgg passeport diplomatique ba Théodore Montey ne a tey ne boobale passeport daanaka amatul lenn lu mu tekki ca bitim réew réew mi di Sénégal nag moom système bi daf fiy jóg àllakan bokk ci cabinet Ousmane Sonko bokk yi ci magi gauche bi moo koy xamle ca bis bi le jour ne waxuma la jóg waaye système bi dañu koy sax far suul ma ngay diggéey ca booba lépp yéene kaay ne mbiram 94 milliards yeeg mbiram Prodac yépp dana leer li wuutale Sonko Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia it moom àllakan ma ngi koy wax waxit ne militaire français yi dañ fee war a jóg dégager lañ war a def Amadou Ba nag bu bëggee def opposition bëgg nekk chef de l'opposition àllakan ne lépp luy àqam ak yelleefam ak avantage yu mu yaayoo daanu ko ko jox ñun foofa la nu yem tey jox leen dig daje ëllëg incha